ضربت جرجا ومرزي لقد ضربت جرجا ومرزي أحمد بام بزرين وترمزي سيق القديم رواي كرزي لقد ضربت جرجا ومرزي سيق القديم رواي كرزي لك صرفت جرجف ومرسي خادم رسول حب رب العرس لك صرفت جرجف ومرسي خادم رسول حب رب العرس لك صرفت جرجف ومرسي يا كارجاك لقوى يبرسي لك صرفت جرجف ومرسي dambak yaa di soppal buuru kursi laka saraftu jërëjëf wa merci yaa magi mag yaa mag sama ak tuuti laka saraftu jërëjëf wa merci laka saraftu jërëjëf wa merci Ahmadu Bamba jërëjëf xadim mooy wéruwaay góor si laka darabtu jërëjëf wa merci mag moom duram la dee ko sant ndaw si laka saraftu jërëjëf wa merci sëriñ bu mag bi moo ma ràññeel sëñ si laka saraftu jërëjëf wa merci yaa asadul